أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإم مجا groupe nooru daaray ni ñoo ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallam di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhanahu wa taala moo nungul ñu suñu jaamu yàlla te jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc ñuy jël niyo boobu nag ak ziyaar boobu di ko teg ci loxool suñu kilifa gi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jëwriñu groupe bi jëwriñu liggéey bi di ko ñaan mu jot dañu ko ci mboolem jëmm yi nekk ci biir groupe bi yëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñëpp di ko ñaanal moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yal na ko yàlla doole defal tawfiix ak guddi fan bi rek fekk tal ak xiwal ba li mun naa liggéeyal maamam ji ci yoonu Cheikhul Khadim bi mu man koo defe nu kawe njortam te nu ànd ko ak moom di ndokkeel it mu dungam ci liggéey bu sell bi mu jiite te di ko saytu ngën ji yu taxawin di ñaan yàlla dolli ko te jàppale bu baax a baax di ziare mbokk yépp daal boroom xam-xam yeeg ñiy teewloog jëmm yu sell yi ne ci biir yëpp di ci wane seeni xalaat ñoo leen di siyaar bu baax a baax di jéggulu itam xañ na gëj a tàbbi ci liggéey bi waaye li ko sabab rek xam nañ ko mooy weeru sell woowu ñu nekkan muy weeru màggal woowu am solo lool nga xam ne dafa ëmb lépp loo xam ne lii lu baax la rek mu nekk ci biiram moo tax bi mu ñëwee daanaka lépp day daal di lëmu ci biir noonu rek muy lépp lu baax ba tax na xañ na jot gaag nañ ci doon bëgg taxawe népp ci wàllu lu ji lu jëm ci liggéey bi lu ci bari mel ne lu xawoon a taxawal waaye taxawul sax ndax mbokk yi wax dëgg yàlla lañ fi jaarale doy na sëkk ñu man cee jariñu looloo taxan daanaka rek liggéey bi ci wàllu googu xawoon a mel ne lu xaw a taxaw daal ay ñoo ngi koy jégg bu baax a baax di sant wax dëgg yàlla di sant yàlla di sant mbokk yi ci seen ab taxawaay ak nag seen ab yëttuwoo ak sellal goo xam ne gi ñu ngi koy sellal liggéey bi nga xam ne bii moom lañu yàlla boole ñu di ko liggéey di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu gën ñu cee jàppale gën ñu ko dëgëralal di jaay sayda muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñu fas yéene tàbbi ci liggéey bi rek muy laaj yi nga xam ne yi moo fi ñëw ñu di ko tàmbale ci laajub soxna Fatma Njaay mi ñu naan ko cubba di ko siyaare di ko ndokkeel soxna si soxna su baax su bëgg lu baax su yittewoo liggéey bi wax dëgg yàlla di ko bàyyi xel lool nga xam ne saa su ne wax dëgg yàlla mi ngi ci tàbbal ay laaj yoo xam ne yu ama am solo la yoo xam ne yii dañ ci mën a dolleku bu baax a baax ci lu ñuy jëriñ waaye képp ku koy teewlu itam di ko déglu di ko bàyyi xel itam di nga ci mën a dolle koo ci lu baax lu ama am solo tey kon moom mi ngi laaj ay baati tudd yàlla wala ñu mën ko wax zikar wala ñu mën ko wax wird ay baat yoo xam ne yii nee na moom da koy jëfandikoo di ko wird masalan wala bo di ko zikar bokk na ca la may laaj ne ne day sikkar tur yàlla wu sel wi muy allatifu nga xam ne allatif dafa bokk ci turi yàlla yi yi nga xam ne yii moom la yàlla wax naa walillahi al asmaul husna fad'uhu biha yàlla ne ne am na tur yu sell yoo xam ne yii suñu bëggee jëriñ ci moom yàlla dañoo diggale ne suñu koy ñaan nanu def tawassul maanaam di barkeelu di ko ñaan ci barkeb turam yooyu nga xam ne yii tur yu sell la yu baax yu am barke te yooyu liñ ci feeñal mooy juróom-ñeent fukki tur la ak juróom-ñeent latiifu mi bokk ci latiifu nag maanaam turu yàlla woo ci jël rek dafa am ay secret ak xewal yoo xam ni ma ngi ko làmboo moom trois waaye nee na latifu mii bokk na ci lenn ci loo xam ne lii ay njëriñam la ne ne bi barakati hazal ismi tasudu al malaikatu bi amalil muminina ila sama ne ne moom latifu mii mooy latif ne ne ci barkeb turu sell wii ci lay malaaka yi nga xam ne ñooy jël si jëfi doomu aadama yi maanaam rawatina jullit ñi maanaam ne ne ñi nga xam ne ñi ay jullit lañu daal jaamu yàlla bi nga xam ne gii moom la ñuy jaamu yàlla ci barkeeb tur yi moo tax malaaka yi di mën a jël jëf yooyu di ko yóbbu ca asamaan sa di ko def fa nga xam ne fii foofa la jaamu yàlla ga war a nekk kon day daal di nekk lu am solo loo xam ne lii moom turi làq làmboo na ko ci muy barke boobu mu am ba xam ne ñun jullit yi jëf yi ñuy jëf ci barke turoow lay yéeg di dem asamaan ne ne kon wa ida xaratahu yawmiyan thalathina maratan xaailan ya latifu bi niyati xadaai xaajatin ma xudiyat bi iznillahi taala ne ne moom latifu mii ne ne soo ko soxalee bés bu nekk nga jàng ko fanweeri yoon te ni nga ko jànge mooy nga nekk ci béréb bu sell bu la boo mënee jàpp nga jàpp boo mënee jullu penku nga jullu penku daal di koy wax fanweer yoon ci baatam nga naa yaa latifu yaa latifu maanaam ba muy fanweer yoon te loolu ba nga koy wax nga yéene ci ak jaamu yàlla goo xam ne gii dañ koy fasaale yàlla fajal la aaju joo xam ne ji yitteel na la ne ne booba yàlla dina la fajal sa aajo yooyu ci barkeeb turu sell yi nga xam ne mooy yaa latifu ba tey bokk na ci yenn njariñ yoo xam ne turu yi làqo làmboo na ko muy yaa latifu nee na wa ida ajasta an xadaai xaajatin ma fa salli rakatayni wa baada al intihaa'i xul yaa latifu mi'ata marratin fa inna allaha taala yaqdi xaajaka xaajataka wa yaxullu mus wa yuxillu muskilataka bi shakalin laa yaxturu bi baalika ne la itam su fekkee ni da nga am aajo yoo xam ne ji yitteel na la lool waaye aajo yu tëli nga ca lool ci maanaam aajo jooju faju ne ne na nga julli ñaari rakkaa ne ne soo jullee ñaari rakkaa ba noppi boo sëlmalee nga wax yaa latifu téeméeri yoon te maanaam am ca yéene yàlla fas fajal la ca sa aajo jooju nga xam ne ji daf laa jafe daf laa tëb leneen loolu boo ko defee yàlla ci boppam aajo joojee dina la ko fayal te it sa jafe-jafe boobu nga nekk yàlla mën na la ko fajal ci fajin woo xam ne lii maanaam nekkutoon loo xam ne bi sax luy nekk ci sam xel la nga defee ndax lu mën a nekk la kon bokk na ci leen lu jagoo boo amee aajo ju la jaaxal nga julli ñaari rakaa wax ko téeméeri yoon muy yaa latifu nga di ko baam ba muy téeméeri yoon ne ne yàlla dina la fajal sa aajo joojee ci barkeeb tur woowu kon turu sel woowu daal ci tënk rek loolu lenn la ci lu néew ci li nga xam ne li moom la làmboo ci ay njariñ ci zahir maanaam ci li feeñ ak li nga xam ne lii moo nëbbu kon kon tur yàlla yépp nag boo ci jël rek di ko zikkar te ji jublu ci ak jaamu yàlla rek yàlla dina la ca defal ay tawféex yoo xam ne yii maanaam du nekk loo xam ne sax loo toogan di yaakaar ne mën nga ko am lay doon kon tur woowu soxna si ne da koy jëfandikoo muy yàlla toyfu tur wu ama am solo la kon mën nañ koo jël di ci tawassul di ci ñaan yàlla mu fajal ñu ci suñuy aajo ak suñuy jafe-jafe bokk na ca la ca toppaat soxna si ne da koy jëfandikoo mooy albasmalatu mooy bismillahi rahmaani rahim nga di ko baaw moom itam lu bare bare ay yoon loolu tamit moom itam lu ama am solo la mooy bismillahi rahmaani rahim baat boobu di ko baamu di ko wérd lu ama am solo ci ab jullit la lu mën a sellal xolub jullit bi la waaye itam lu mën a faj ay aajo la moom itam lu gën a mën a laabal xol la bab jaam gën a mën a julli ci jaamu yàlla bu baax a baax tey dafa am ay njariñ yoo xam ne yii tur wi moom muy bismillahi rahmaani rahim da ko lamboo bokk na ci lii nga xam ne lii moom lay bëgg a wax te Sëriñ Tuubaa moo ko wax ne ne wa in xarata waqta subahin basmala ashran wasaltaha bi lafdi xawxala xarajta min kulli zunubin yaa fata ka yawmi mawlidika fii ma sabata Sëriñ Tuubaa ne ne yow jullit bi yow taalibe bi soo jullee julleeg julleeg suba ba noppi muy julli farataga nga daldi wax bismillahi rahmaani rahim boole ca laa xawla wala quwata illa billahi al aliyil azim nga wax ko fukki yoon maanaam nga ne bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala quwata illa billahi al aliyil azim wax ko fukki yoon bi nga sëlmalee jullig suba sëriñ bi ne ne soo ko defee rek na nga xam ne génn nga ci yépp bàkkaar yoo xam ne yow aman nga ko ba dem ba set ci ay bàkkaar ba mel ni bis bi nga xam ne bii ci nga ganee adduna kon gis nga bismillahi rahmaani rahim gis nga bu dee ci tom boobu lañ mën nañ ne kon maanaam luy dindi ay bàkkaar la ndax ne ne soo jullee suba rek loolu ma wax muy bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala quwata illa billahi al aliyil azim nga boobu ko fukki yoon rek tàggoo nga ak sa yépp bàkkaar yi nga xam ne yi moom nga aman ba mel ni bés bi nga xam ne bii ci nga ganee àdduna wa anka yadfa'u idan rabbun ala ithnayni ma'a sab'ina baaban min balaa yakunu adnaaha juzaamun ulima wa barasun ala ittifaaqi al ulama tey ne ne bokk na ci njariñi bismillahi rahmaani rahim ne ne jamono jooju nga ko waxee fukki yoon noonu wu ne ne yàlla dina la jiñal maanaam dina dox sa digganteeg juróom-ñaar fukki balaa ak ñaar wala juróom-ñaar fukki bunti balaa ak ñaar yoo xam ne yii maanaam mënan naa ñëw dal ci sa kaw te nee na juróom-ñaar fukki balaa yooyu wala juróom-ñaar fukki bunti balaa yooyu ak ñaar nee na bi ci gën bi ci doon gën a oyof gën cee néew mooy juzaamun muy ngaana wa barasun ak feebaru mën nañ ko wax feebaru siti muy siti bu garaaw boobu da ne kon gis nga bokk na ca bi la ci yàlla jégale say bàkkaar yi tamit yàlla dina la tëjal juróom-ñaar fukki bunti balaa ak ñaar yoo xam ne yii balaa yooyu maanaam dafa naroon a jëm si ci yow te balaa yooyu ba ca gën a néew gën caa oyof mooy ñaari feebar yi muy lu mel ni feebaru ngaana boobu doon am ak it feebaru nuñ ko waxee siti bi nga xam ne bi day yàq aw yaram kon gis nga lenn loolu doon lenn ci njariñ yi bismillahi rahmaani rahim ba tey it sëriñ bi waxaat na it ci njariñal bismillahi rahmaani rahim wa baada za bika yuwakkilul malik min xiini ma asbata sabina malak yastaxfiruuna laka lilleyli kada xaddasahu xayrul wara wa urida sëriñ bi ne na itam ba tey bis bi nga jullee suba noonu wax ko fukki yooyu ma waxan ne bokk na ci la la xam la nga xam ne yàlla dana la ko ci def ne mooy yàlla dina la booleeg malaaka moo dina la booleeg dina la booleeg juróom-ñaar fukki malaaka soo xëyee ne ne boo xëyee juróom-ñaar fukki malaaka yërmande la la yàlla di booleel ñu yendu di la jéggulul yàlla waaw yastaxfiruna laka lil layli nga xam ne dañuy yendu ñoom malaaka yooyu di la jéggulul yàlla ba guddi jot te ne na lii ab xaddis la boo xam ne bi sayyiduna muhammad moo ko wax ñu jël ko nii nga xam ne ni moom la ko waxee moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga ne juróom-ñaar fukki malaaka suñu yendoo di la jéggulul sa borom ba ngoon comme lam la waxan fekkoon day daal dikk ci ne boo ko waxee rek da nga daal di tàggu ay bàkkaar yi nga xam ne yi moom nga aman mel ni bés bi nga ganee àdduna te bokk na ca ay njariñam ba tey waxee aydan baynana wal jinni sitrun kama rawa foxolul fanni ne itam jinne yi nga xam ne ay seytaane lañ maanaam jébbulaguñu tuubaguñu nga xam ne dañoo mën a lor doomu aadama ne ne bismillahi rahmaani rahim ma maanaam moo jaar suñu digganteeg ñoom ba maanaam duñu mën a defa loo xam ne lii lu ñuy wàññi la junne yi nga xam ne yii dañoo mën a lor doomu aadama ndax dañoo tuubagut ay seytaane lañu dañuy def lu baaxut di ko def doomu aadama ne ne bismillahi rahmaani rahim moo nekk suñu saatir suñu diggante ak jinne yooyu ba duñu mënal dara ba tey mu daal di wax ne wa kullu man fi wajhi zalimin xaraa xamsiina minha wa yaxaafu darara fa innahu ya'munu zalika darar li annahu yuziluhu rabbul bashar nen itam képp koo xam ne kii sam noon bu saay-saay boo xam ne bii dalaa bëgg a lor jàkkaarloo na ak yow nga daal di wax bismillahi rahmaani rahim juróom fukki yoon ne ne bu boobaa soo ko waxee rek loraanga ji nga xam ne jii moom nga doon ragal ci sa noon boobu juróom fukki bismillahi rahmaani rahim yooyu nga wax dina tax loraanga jojee sa noon boobu dootu dootu la ko mën a lor ndax ne ne soo ko waxee juróom fukki yoon ci kanam noon boobu rek yàlla suñ borom ci boppam mooy daal di toroxal noon boobu ba maanaam dootu la tal bu ko defee loolu itam day nekk ci lenn ci njëriñ yi nga xam ne yi bismillahi rahmaani rahim lamboo na ko wa kullu man xaraaha inda ruqad ihda wa ishrina faqat bi lasdiyat fa innahu ya'munu mawtal fajati wa kulla saarixin bi tilka laylati bokk na ci itam ci njëriñ yi bismillahi rahmaani rahim soo demee ba nga xam ne bii yaa ngi bëgg a tëdd maanaam guddi jot na nga dem ba sa tëri sa waxtu tëri yot nga dem ba xam ne tëdd dong nga la defee nga wax bismillahi rahmaani rahim ñaar fukki yoon ak benn nga xam ne dañ koy wax ñaar fukki yoon ak benn ne ne guddi googu maanaam doo ci dee dee ak mbetteel te it di nga ci am kóolute ba benn sàcc boo xam ne bii ab saay-saay la du ñëw di sàcc sa alal ci guddi googu wa kulli shaytaanin aazana al ahad min sharrihi wa sharri xayrihi abad dana itam boo ko waxee ñaar fukki yoon ak benn ci jamono jooju ngay tëddit seytaane dina la musal ci yàlla dina la musal ci bépp seytaane boo xam ne bii buy war a ñëw ci guddi googu di la lor la wa in xarataha wa anta taxtawi bi kulli xarfin mustaqilin taxtawi daal uluufi xasanaatin wa tuxat an ko xataaya mislahunna la xalat dana itam bokk na ci njariñi bismillahi rahmaani rahim ne ne boo waxee bismillahi rahmaani rahim benn araf bu ci nekk maanaam nga xam ne danga boo ko doon tamit danga naa baa bi aw araf la siin gi aw araf la miim gi aw araf la ba bismillahi rahmaani rahim arafam yooyu yépp ne ne soo ko waxee ne ne benn araf bu ci nekk yàlla dina la ci bindal ñeenti junniy tuyaaba waaye tamit yàlla dina la ci faral ñeenti junni ñaawteef yoo xam ne defan nga ko mu doon ay bàkkaar yoo xam ne yii dañ la ko naroon a topp gis nga ne ne boo ne bismil bismillahi rahmaani rahim ne ne baagi yàlla dina la ci bindal ñeenti junni tuyaaba faral la ci ñeenti junni ñaawteef ay bàkkaar nga wax siin nga muy siin nga bism ja muy siin nga soo ko waxee dina la ca bindal ñeenti junni yiw ak pay waaye itam faral la ca ñeenti junni bàkkaar noonu nga koy topp ba araf yépp jeex araf wu ci nekk ne ne noona la ca yàlla def ak yow ci secret boo xam ne bii tur wi am na ko wa mithluhunna darajatin tarfa'u laka ida axlasta xiina tashra'u ne na tamit ñeenti junni yooyu mu la doon wax ci di la ko bindal ci ay tuyaaba waaye itam di la effacer di la raafal ñeenti junni ñaawteef yooyu bàkkaar dana itam yàlla wenn arab wu ci nekk dina la ca yëkkati defal la ca ñeenti junni daraja yoo xam ne yii ay daraja yu kawe lay doon yoo xam ne yàlla dala koy jagleel nga amee ko ci barke tur woowu di bismillah rahmaan rahim ci wenn araf wu nekk kon defe naa boo ko limee dina bari lool ne na fa adadul xurufi rasman tuutabar adda zamaniyati tisaata achar ne ne bismillahi rahmaani rahim soo koy lim day yem ak luy day yem ak limab malaaka yi nga xam ne yi ñoo yore sawra maanaam fukk la ak juróom ñeent wa anna man dakaraha minhum naja kama bihi xadiisu xayril xalqi jaa ne ne képp koo xam ne ki yaa ngi zikkar bismillahi rahmaani rahim ne ne dina mucc ci malaaka yongu yu nga xam ne yi ñoo nekk sawra maanaam doo dem sawra la bëgg a wax te ne ne lii tam ab xadis la boo xam ne bii sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax alayhi afdalu salaati wa salaam maa hada du nasihatin xayral maraam bokk na ci njariñi bismillahi rahmaani rahim ba tey sëriñ bi nee na wa xaytuma yubasmilu sabiyu fi maktabin yaktub lahu al aliyu wa walidayhi wa liman yuallimu baraatan min naarihi faltarnamu sëriñ bi nee na gone day saa bu koy waajuram yabalee ca daara ja maanaam fa ñu jànge alxuraan dafa jànge lislaam gone googee daal di dem wax bismillahi rahmaani rahim ne na bés boobee mu ko waxee yàlla ci boppam day daal di bind ne xale bii day moog ñaari waajuram ak ñi koy jàngal wala ki koy jàngal ñoom ñëpp mucc nañ ci sawra ne na kon loolu itam ne ne fal dara na mu ne ne na ngeen ko profité na ngeen ko màng ngir mën a am loolu nga am doom wala xale bu ndaw boo xam ne bi da nga ko yebal ca fa ñuy jànge alxuraan fa ñuy ca daara ja fa ñuy jànge lislaam ne ne bu xale bi demee ba wax bismillahi rahmaani rahim rek moom xale bi ak ñaari waajuram ak ka koy jàngal wala ña koy jàng rek maanaam daal di nañu mucc ci sawra yàlla musal na leen ci sawra ne ne loolu nag kon na ngeen ko daal di gaaw jéem a am xiwal gu rëy googu daal di waxaan ne wa raakibu daabati mahuma basmala inda rukubihi laha wa hamdala taktubluhu malaiku salaami xasanatan ka adadil aqdaami ne na itam ki nga xam ne kii day war ci dara maanaam am fooy dem nga war ci aw fas wala mbaam wala sareet wala oto wala saxaar wala avion ne ne lu mën di doon nga nga yéeg ca loole jamono ja nga ca yéeg wala nga di ca dugg nga wax bismillahi rahmaani rahim bi nga demee ba toog ca loola wala nga dugg ca biir loole nga xam ne ni moo la yóbbu nga daal di wax alhamdulillahi ne ne malaaka yi nga xam ne jàmm dong la ñuy sàkkul mbindeef yi ñoom dinañ la bindal ci bépp jéego boo xam ne bi loolee nga war wala loolee nga dugg ma ngi koy dox aw yiw woo xam ne wii dañ la koy bindal mu tolloog limam kem la loola di dox ci ay jéego gis nga ko bu dee ay jéego mën nañ ne bu dee ni aw fas la jéego bu mu dox rek ñu bind la aw yiw bu dee lu yor ay tànk la waaye itam bu dee ni lu yor ay pëna la lu mel ni oto wala luy naaw wala luy du dem jaar ci am ndox di dem mën nañ ne kon meetar bu mu dox rek wala luy yéesa meetar saxit ñu bindal la ca aw yiw kon gis nga nga yéeg ci dara di mu la yóbbu wala nga dugg ko wax bismillahi rahmaani rahim bi nga ci waaj a dugg wala bi nga ci waaj a yéeg bi nga toogee bi nga yéegee ba toog wala nga dugg ba toog daal di ne alhamdulilahi ne na jéego bu loolee dox loolu nga dugg wala nga war ko jéego ba mu dox rek maanaam dañu cay daal di bindal tuyaaba yoo xam ne ji malaaka yi nga xam ne malaakaay jàmm dong la ñu maanaam ñooy ànd ak yow di la bindal tuyaaba yooyu ba kera ngay wàcc ne ne asraaruha akasaru min an tuhsa amal fawaidu fala yustaqsa kon daal ne ne bismillahi rahmaani rahim daal am na ay secret yoo xam ne yi dafa bare bare bare ba maanaam mënee su koo takk boo ko doon lim dee su ko mën a jàpp waaye ne ne lim am ci ay njariñam itam maanaam amul fenn foo xam ne fii yem na fa kon defe na lim lim fii rek ci ay njariñ yoo xam ne yi bismillahi rahmaani rahim làmboo na ko bu ci yeman dong mu doy sëkk ay njariñ kon kum ci mën a doon boo ko digloo boo ko teewloo mën nga cee jël bu ci nekk ab sikkar boo xam ne bii yow mën nga koy jëfandikoo bu ko defee muy doon ay njariñ yoo xam ne yii dina la mën a jariñ ci say mbiri àdduna ak sa mbiri àlla axira soxna Fatma ba tey bokk ci ay laajam mu ne itam day julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam asalaatu ala nabi yi muy laaj bu amati solo moom itam jóge ci soxna si ba tey it foofu itam liñ fiy wax ci loo xam ne dañ koy tënk rek mooy amma salaatuna ala nabiyi muhammadin xayri bani lu ay yi fahiya ajallu ma tamassakta bihi baada adaa il fardi faltantabihi cheikhul xadim day wax ci wàllu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dane julli gi nga xam ne gii day yàlla dañu digal nu war ko julli ci yonente bi nu war koy def ne ne suñ koy def day dang mooy yonente bi nga xam ne bii moo gën giir ak bani lu ay gim bokk yépp moo ca gën ne na julli ci yonente boobu day moo gën lépp loo xam ne lii yow jullit bi yow taalibe bi jàpp nga ca loola di ko def ginnaaw bi nga joxe sa farata yi nga xam ne yi moom la yàlla farataal ci yow ba noppi nee na daal nit ki daal saa bu joxe farata yi nga xam ne moom la ko yàlla farataal def farataal ci moom muy wàllu julli yaag koor yaag asaka yaag dem màkka yaag yooyu tudd ñaari baati seere yi nee na yooyu nga xam ne ay farata la ci nit ki nee na su ko nit ki defee ba pare nag leneen lu muy mën di def ci jaamu yàlla daal nee na julli ci yonente bi moo ca gën a màgg bu ko saxoo di ko def loolu nag Sëriñ Tuubaa ba tey diñu ci wax ay njariñ yoo xam ne yi salaatu ala nabi làmboo na ko dañuy mën a jël ayab alxuraan bii ne ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman julli ci yonente bi dafa màgg dafa rëy ndax yàlla ci boppam subhaanahu wa taala moom moo waxal bopp ne moom yàlla ci boppam day julli ci yonente bi malaakaam yi dañuy julli ci yonente bi daal di ne kon yéen ñi nga xam ne ñi gëm ngeen ma man yàlla na ngeen di julli ci yonente boobu kon loolu mu doon lu rëy loo xam ne lii maanaam loo xam ne lii yow boo koy def dalay leer nañ ne yaa ngi koy defandoog yàlla yaa ngi koy defandoo ak malaakam ya loolu lu rëy rëy la loo xam ne lii ku nekk war na koo bàyyi xel ba loo ci mën di def par bés rek moo xam guddi la wala bëccëg la wala waxtu mu la jàpp ne nga di ko def maanaam loo ci def rek doy muy julli ci yonente bi ndax jëf la joo xam ne ji yàlla ne ne man maa ngi koy def maa ngi samay malaaka ba pare daa di nu digal ne kon na ngeen koy def looloo taxan xaadimu rasul daa di ne yaa man yaquudu li musallin marra alayhi ashran xattu niiru birra yi xaadimu rasul dina leeral njariñ yi nga xam ne yii julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko am solo dafa wax ne yow yàlla yow mi nga xam ne mii ci sang baax da nga noo digal ci ne nañuy julli ci yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam nga dañu ci fay pay goo xam ne gi kenn koo xam ne kii julli nga ci yonente bi benn yoon maanaam nga defal ko ko fukki julli ci yonente bi yoo xam ne yii lépp loo xam ne lii lu mu war a def ci baax la rek ne ne julli googee maanaam yàlla fay ko ci fukku loolu dina tax dina am darajaay lépp loo xam ne li lu baax la rek julli googu leeral ko ba mën di def lu baax loolee kon gis nga koo xam ne ki da nga ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala nga ne sallallahu ala muhammad wala génn julli ci yonente bi goo man gu mën a doon dafa bari lool lool nekk ne ne boo ko waxee benn yoon maanaam yàlla daal da cay fay fukki tuyaaba yoo xam ne da lay leeral lépp loo xam ne lu baax la ngay mën a def lu baax loola daa di waxaat ne yaa man yuwassilu li di ashrin mia bi jaahi yaa man xama an sayyi'a yow mi nga xam ne mii yow yàlla yow mi nga xam ne mii ku julli ci yonente bi fukki yoon nga julli ci moom moomee téeméeri yoon maa ngi ñaan yow moo xam ne mii képp koo xam ne kii mi ngi sax di julli ci yonente boobu nga aar ko ba du def lu baaxut loo xam ne lii lu neexut lu la neexut la loolu moom li ñu fi bëgg a jàng rek mooy boo jullee ci yonente bi fukki yoon itam yàlla julli ci yow téeméeri yoon neema shafi'un man alayhi mi'ata salaxtawa alfan tafuuqu fi ada ne ne kooku dal mooy ràmmkat bi nga xam ne bii amul moroom ci ràmmu ci mën ñoo dimbali bu ndee ba sonn ca bés penc ba mu dox suñu diggante ak coono ya ci ñaan yàlla mu bàyyi coono ya ne ne képp koo xam ne kii julli nga ci moom téeméeri yoon ne ne yàlla julli ci yow junni yoon nga xam ne yow julli junni junni yoon bu ko yàlla jullee ci yow benn yoon dongu sax ay waxin la rek ak jàngale di wax solo soo xam ne si am na ko waaye ne ne kon boo jullee ci moom téeméeri yoon yàlla julli ci yow junni yoon wa huwa allazi liman alayhi alfa sollal muna wa fil jinaani yulfa te ne ne kooku mooy sang bi nga xam ne bi képp koo xam ne kii julli nga ci moom junni yoon maanaam ne ne di nga am xéwal goo xam ne gii dina kowe sa njort fii ci àdduna tayit ne ne soo faatoo maanaam da ngay daal di dem àjjana ja nga xam ne ji maanaam foofa lañ lay miin gis nga yow ci waa àjjana nga bokk kon gis nga salaatu ala nabi yi ku ci julli benn yoon yàlla julli ci yow fukk boo julee fukk mu julli ci yow téeméer boo julee téeméer mu julli ci yow junni boo julee junni nag daal di fara àggal kon maanaam di am ay xéwal yoo xam ne yu kawe say njottu la waaye itam boo faatoo rek maanaam mu ne da ngay daal di dem mën a daal di tàbbi ca àjjana jaw jooju nga xam ne bii mooy kër ak teraanga nga xam ne bii mooy kër ak bépp jullit boo xam ne bii foofa moo war a doon sa kër kon salaatu ala nabi mu yaatu la lool kon soxna si ñu ngi koy sant bu baax a baax wax dëgg yàlla ndax andi nañu fi ay njariñ yu baax yu am solo yoo xam ne yii lu nu war di fàttaliku la waaye lu nu war di fàttalee la ndax ay njariñ la yoo xam ne yii ku koy teqamtal di ko bàyyi xel di ko jëfandikoo muy turu yàlla yi muy laaj ak basmala bi muy bismillahi rahmaani rahim ak salaatu ala nabi ak ya ca aju yépp ku ci sax di ko def wax dëgg yàlla góorgóorlu ba sa bëccëg gi wala sa guddi gi lu mu xat-xat da jéem caa am loo cay def sa wirdu woo xam ne da nga koy sasoo di ko mën a def da nga cay am ay njariñ yoo xam ne yéen yu am solo lay doon ci sa mbir yi àdduna ak sa mbiri alaxira yàlla nañ ci yàlla doon la jàppale jay seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeneen laaj yi ci topp mi ngi jóge ci sëriñ Modou Dieng ñoo ngi koy ziar bu baax moom itam ci di ko ndokkeel ci bàyyi xel gu muy bàyyi xel liggéey bi bu baax moom itam moom dafay laaj man nasiya takbiratal ihram yi wa tazakkaraha baadal fatihati ne ne koo xam ne kii dafa fàtte kàbbarab armal ci julli dem ba jàng faatiha bëgg a fàttaliku ne moom kat kàbbur kàbbarab armal lan moo dib atteem nan lay def dañ ko naan ziyaadatu rukunin sahwan yujibu sujuda baada salaam maanaam bu fekkee ni yow da ngay julli bu dee ci ponk yi la mooy julli gi ponk ya mooy farata ya ne ne soo ca dolli ponk moom dolli ko nga dolli ponk boobu maanaam farata day waral maanaam soo jullee ba sëlmal maanaam nga sujjóot sujjóotu sahwi kon dafay wax ne wa naqsu niyati aw takbiratil ihrami yubtilu salaata ne ne nag boo boolee farataay julli yi da nga ci xàjji ñaar yi muy yéene ak kabarab armal ne ne yéene na moom ak kabarab armal ku ko bàyyi ci julli maanaam nga xam ne da nga julli ba noppi te bi nga jullee mu leer la nañu ne maanaam yéenew lan julli ga julli ga baaxatut da nga koy baamu waaye itam boo jullee ba pare mu leer la nañu ne yow moom bi ngay dugg ci julli gi kat kabaroo kabar ba armal su boobaa maanaam julli googu day yàqu da nga koy baamuwaat kon gis nga ci fiq dafa yaatu lool bari ay sew-sew lool ci biir gis nga kon da ngay jàpp ci farataay julli ne ñaar yi moom su amul ci julli ga rek maanaam julli ga doxut maanaam baaxut dañ koy baamuwaat muy yéene ak kabarat armal bu ko defee ne ne ama naqsu xayrihima min arkaani salaati fa yajibu tadaarukuhu im ankana mene nag boo ci génnee ñaar yi yeneen ponk yi des muy yeneen farata yi ne ne ku ko wàññi maanaam defoo ko maanaam da nga ko war a dabaatal su fekkee ni dabaatal googu jàppandi na am na fatwa buñ ci dewoon ci ki bàyyi ab sujjóot ci braka wala ruko wala yooyu nuñ koy dabaatale su ko defee kii nga xam ne kii nag dafa fàtte ne moom kàbbarut kàbbarab armal waaye nag teel na ko farle ko nga xam ne dem na ba dafa jàng faatiha daa di farleku ne moom kat kàbburut kàbbar bi armal kon day daa di dellu daa di kàbbar kàbbar ba armal daa di continuer ci julleem jàng faatiha ak ya ca topp su ko defee kon dañuy daal di gis ne kon baamu na faatiha ja ndax jàng na ko ñaari yoon su ko defee su jullee julli ga ba mu sotti bu sëlmalee daal di sujur sujur du sëri maanaam ñaari sujur lay doon yoo xam ne da koy sujur ginnaaw bi mu sëlmalee te it dañuy gis ci fatuwaayu Cheikhul Xadim muy wax ne waman kararal fatihata sajada baada salaam nga xam ne moom dala koy tënkal tënku yu yomb yoo xam ne boo ko dee jàpp mooy gën a yomb ci yow ne ne képp koo xam ne kii da ngaa baamu fatiha ci biiral julli ne ne da ngay sujjóot ginnaaw salaam maanaam ginnaaw bi nga sëlmalee kon kooku daal bu fàttaliku na ko muy kàbbaral alma bi ginnaaw fatiha day kàbbar kàbbaru alma daal di tàmbali waat julli ga fatiha ja daal di continuer bu paree daal di sujjóot sujjóotu sëf bi baax na kon ñu jàpp ko noonu beneen laaj bi ci toppaan mi ngi jóge ci sëriñ Moodu Fall moom itam ñoo ngi koy ziar di ko ndokkeel ci taxawaayam ci liggéey bi moom dafay laaj alfarqu bayna shuruti imaami rawatib wa imaamil jumaati day laaj ndax charte yi nga xam ne yi ki jiite julli juróom yi moom la war a am ak ndax am na taqalikoo ak charte yi nga xam ne yi kiy jiite ajjuma moom la war a am maanaam daal ki nga xam ne kii imaam la waaye day jiite aju jiite jullik ajjuma ak imaam bi nga xam ne bii julli julli juróom yi rek la jiite ndax nee na seeni seeni charte nan la fa demee maanaam wóote na wala am na lu ñu taqalikoo xam naa la ñuy soree du bare ndax dañu naan shuruutu imaamil jumaati hiya shuruutu imaamil jamaati nafsiha aw nafsuha kama warada fil masaadiril fiqhiyati dañu ne ñun li ñuy jàng ci fiqh dañu ne charte yi nga xam ne kii jiite jullit ajjuma mooy charte yi ki nga xam ne ki mooy jiite jullit mbooloo ga mooy jiite yeneen julli ya yeneen julli juróom ya maanaam ne na ñoo bokk comme ni nga xam ne ni noonu la rote ci delluwaay yi nga xam ne ci la ñuy dellu ci fiqh kon daal waaw li ñu ko fi wax mooy imam bi jiite moom jéem imam la moom charte yi nga xam ne yii mooy war a nekk ci imam moo xam jullit ajjuma la jiite wala jiite jullit mbooloo muy yeneen julli juróom yi la charte yi benn la ndax bu dee ni jullit ajjuma xañ na la ñuy wute mooy xutba ba te imam wax dëgg yàlla bu demee bay jiite xutba boobu nga xam ne bii faaw dañ ko war a jàng ci arab war na ko mën a jàng waaye tamit jéem dañu dem ba dañ koy aajowoo ci ña ngi koy waxal ña nga koy xutbaal lang wuñ ko mën a xamee boo ko waxee arab bi ba pare nga waxal leen ko da ngay mën a xam nag arab boobu yow bu dee ni olof la wala weneen lang wu mën a doon soo paree nga mën mën leen ko caa fanam fàcceel kon daal charte ya moom benn la bu ko defee xutba bi moom ku jiite war nga mën a góorgóorlu ba arab bi nga mën ko waaye tamit ña ngay jiite te julli ajjuma ga di leen xutbaal soo jàngee xutba bi ci arab bi moom mënta ñàkk waaye soo paree nga faram fàcce leen ko ci seen làng woowu ñu ko mën a gën a déggee kon ci biir laajam bi dañ koy wax rek ne ko aljamaatu shatu sixatin fil jumaati wa sunnat mu akadun fi xayriha min al faraid kon booloo di doon mbooloo bu dee jullit ajjuma la moom mooy tax mu wér maanaam doon mbooloo mbooloo ga ñuy booloo ngir di julli jullit ajjuma maanaam charte la boo xam ne bi mooy tax julli ga wér kon julli mbooloo maanaam desu ko kenn kennoo maanaam kenn mënta beru di julli jullit ajjuma laa bëgg a wax jullit ajjuma mbooloo gañ cay booloo maanaam mooy charte ba nga xam ne bi moo koy wéral jullit ajjuma kenn du ànd yow dong di ko julli waaye booloo ga wa sunnatu mu akram fi xayriha min al faraid booloo di julli doon mbooloo itam bu dee ni julli farata yi la muy juróomi julli yi loolu mu sunna su dëgër la soo xam ne si yonente bi da ko doon def te di ko digle waaw kon booy xool ñaari mbooloo yooyu mooy am ci julli muy mbooloo mi julli ajjuma ak mbooloo mi nga xam ne mi dañuy mbooloo di julli julli juróom yi su ko defee bu dee ci julli ajjuma la moom bu doonul mbooloo du mën a wér moo koy wéral waaye bu dee ci julli juróomi julli juróom yi la rek moom booloo ga di julli moom sunna la soo xam ni su dëgër la waaye terewul ku nekk mën nga bari def ko su la neexee waaye nag dem ci julli mbooloo ga moo gën ndax ne ne wa salaatul jamaati afdalu min salaatil fazi bi sab'in wa ishrina darajatan yow mi julli dem ca mbooloo ma ne ne boo demee ànd ak mbooloo mu julli julli googu dina ëppee boo julli woon yow dong ànd ci ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar dinañ la ci ko dinañ la ko ca yokkal maanaam boo nara na ànd yow dong julli nga dem ca julli mbooloo ga dem googu nga dem ànd kook mbooloo di ko julli ne ne liñ lay fay ci julli gi maanaam dinañ ca yokkal juróom ñaar dinañ ca yokkal ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar kon defe naa julli mbooloo lu ñu war a fonk la te it lu ñu war di góorgóorlu di jéem a def di ko defe di defe ji ca mbooloo ma bu ko defee charte yooyu nga xam ne nag mooy war a dajaloo daje ci ci ci kiy jiite mu doog a war a mën doon imam moom lay wax fii ne ne wala tasixul jamaatu illa bi imamatin tatawafaru fiha shurutul atiyatu ne ne nag genn julli mbooloo du wér lu dul ni day tegu ci ak jiite ak jiite goo xam ne gi jiite googee charte yi muy bëgg a wax da cay am buñ ne jiite nag maanaam jiite ga charte ya mooy imaamatul mooy ak jiite waaye imaam mooy kay jiite kon buñ ne shurutul imaamati muy charte ak jiite mooy shurutul imaam rek mooy charte ka nga xam ne kii day jiite dañ ci jàng fii ci ñun li ñuy gëstu ci fiqh mu nekk fukki charte yoo xam ne yii dafa war a dajaloo ak jiite doog a mën a am maanaam imaam ja charte yooyu da ko war a am lii mooy charte yi nga xam ne yii dafa war a dajaloo ci kiy jiite wala ak jiite muy azzukuratu al islaamu al aqlu al buluuxu fi l fardi al qudratu ala al arkaan an laa yakuna ma'muuman an laa yakuna mutaamid al xadas al ilmu bima la tasixu salaatu illa bihi min fiqhin wa xiraatin al iqaamatu fil jumaati ak alxurriyatu fil jumaati fukk yi daal nañu mooy charte yi nga xam ne yii dafa war a daje ci kiy jiite wala ci ak jiite muy azukuratu mooy ak ngóor maanaam nekk góor kiy jiite góor la war a doon fala tasixu imaamatul marati walaw li nisaay ne ne jiiteeg jigéen wérut doonte ay jigéen ni moom lay jiite ba ca ñaareel ba muy al islaam mooy kiy jiite dafa war a nekk ab jullit bokk ci lislaam fala tasixu imaamatul kaafir ne ne ab yéefar bu mën a jiite lu mën a mën a jiite itam bu jiitee jiite ga du wér al aqlu ki jiite dafa war a am am xel fala tasixu imaamatu majnuunin wala sakraan ne ne koo xam ne kii ab dof la bu jiitee du wér waaye koo xam ne kii dafa màndi ba taqali ko ak am xelam itam bu jiitee du wér al buluuxu fil fard bu dee julli farata la ne ne kii jiite dafa war a majeur fala tasixu imaamatu sabiin lil baalix fil fard ne ne gone gu ndaw goo xam ne kii majeur agut wërta jiite koo xam ne kii ku majeur la bu dee jullit farata la alxudratu alal arkaani ki jiite daa war a mën a am kàttan ak ponk yi nga xam ne yi mooy ponk julli gi yëpp man koo marqué maanaam man koo def fala tasixu imamatu ajizin an ruknin ne ne koo xam ne ki lot na ci benn ponk ci ponki julli yi ne ne kooku wërta jiite kal xiyaami lu mel ni koo xam ne ki mënta taxaw di julli illaa liman yu saawihi fii ndarek bu ñamuy jiite wala kamu jiite da caa yem ak moom ca tële boo nga xam ne ki da ko tële kon ki nga xam ne kii am na ponk yoo xam ne mënu koo def maanaam mënta sëgg wala toogaay ba nga xam ne bi moo la war a toog dëgg mënu koo toog maanaam wër na jiite ñoo xam ne ñi ñoom mën nañu ko lu dul ni dañoo tële loole mu tële comme moom juróom beneen ba laa yakuna ma amu man maanaam kiy jiite day bokk ci ay charte maanaam bu mu nekk ku ñu jiite woon wala tasixu xalfa ma mumi ne ne ak jiite du wér ci ginnaaw koo xam ne kii dañ ko jiite woon ba pare loolu nag maanaam liñ ko leerale mooy buñ dee julli julli mbooloo ga am ñoo xam ne ñi julli ga da leen a raw ñu ñëw bu imaam sëlmalee ku nekk da nga war a motali sa jullik bopp waaye dañuy bañ ñoo ñu nga xam ne ñu julli ga am na rakkaa yu leen ca rawan imaam sëlmal ñoom ñooñu ñu daal di toppaat ci keneen koo xam ne kii moom ñoom ñoo ñoom la rakkaa yooyu raw su boobaa seen julli ga day yàqu bu boobaa bu imaam sëlmalee ku nekk da nga war a dem ak sa jullik bopp loolu dañ koy seetlu ne am na ñu bari ñaawe bu ñu duggandoo ci jàkka noonu wala jullit mbooloo fekk ay rakkaa raw leen ca bu imaam salmale da ngay daal di gis ñu topp ci genn te bu boobaa seen julli ga day yàqu loolu lay wax ne an laa yakuna ma'muman bu mu nekk ku ñu jiite woon mu wëlbatiku di jiite waat wala tasifu xalfa ma'mum kon loolu dañ koy bàyyi xel bu baax juróom ñaareel bi ca sartu imaam mooy an laa yakuna muta'ammidal hadas kiy jiite no nekk koo xam ne kii kuy yore sobel maanaam ku war a jàpp la te jàpp wala mu war a sangu farata te sangut farata moo ko tey ne na ki nga xam ne kii day ñëw di jiite waaye jàpp te moo ko tey mën naa jàpp wala war naa sangu farata sangu te sangu ko waaye moo ko tey ne na kooku moom wërta jiite fala tasixu xalfa mutaamidil xadis yi fiha ne ne koo xam ne kii dafa waroon a jàpp te jàpput wala mu war a sangu te sangut te moo ko tey bu jiitee jiite ga du baax beneen sart ba ca topp mu juróom-ñetteel mooy al ilmu bi ma la tasixu salaatu illa bihi kii jiite war naa xam lépp loo xam ne lii ca la julli gay yéwé na ca la julli gay baaxe min fiqhin ci bu dee ci wàllu fiqh la dafa war a xam lépp lan mooy attey julli ga wa xiraatin waaye dafa war a doon koo xam ne kii ku mën a jàng njàngam alxuraan ma njàng mu baax a baax lay doon bu ko defee ne ne fala tasixu salaatu man ixtada bi jahilin bil fiqhi ne ne képp koo xam ne kii nag koo xam ne kii jàngut fiq mënu ko dalaa jiite ne ne boo royee ci moom sa julli googee du wér lu du nit dañoo yem nag lay wax illa an yakuna mislahu bi ca des wala bi ci toppaan mu juróom-ñeental mooy al iqamatu fil jumaati bu dee julli ak juma la day bokk ci sart kay jiite maanaam mu dëkk ci dëkk ba bu ko defee falaata seexul jumaatu xalfa musaafir waaye ak julli ak juma koo xam ne kii gan daa ñëw ci dëkk bi ñu ne ko jiital jiite ak ajuma ga su boobaa jullit ajuma ga du wér fukkeel bi te mooy liñ ci jàngan ci charti imam mooy alxuriyatu fil jumaati ne ne ca jamono yi ñuy wax ay affaires yi ay jaam ak yooyu te loolu moom amatul jeex na léegi ne ne booba dañ doon sartal kii jiite daa war a nekk gor maanaam dafa war a nekk ku moom boppam waaye loolu moom defe naa boobu moom dafa man dañ dafa man soo doxatul moom kon fukk yi daal mooy charte yi nga xam ne yi képp kuy jiite rek maanaam war naa daje ci yow bu dee julli mbooloo la muy julli juróom ya wala julli añoo gum ci mën a doon charte yi moom la imam bu war a am kon xam naa dañuy dem ci laaj bi nga xam ne bii moom la ñu mujjee tey rek muy laaj bi nga xam ne bii muudu ngom jëw dañu liggéey bi moo ko fi tàbbal muy laaj lu jëm ci wàllu gàmmo gàmmo ban taxawaay la ci ak jullit war a am ak taalibe kon ñoo ngi leen di ziare waat bu baax a baax di leen ndokkeel ci weer wu sell wi nga xam ne itam yàlla may nañu tawfiix ñu fekke ko yal na yàlla doole dimbali ba nu fekke guddi googu te taxaw ci màggal ko màggaay ba màggal goo xam ne gii dina yelloog mi nga xam ne nii noonu lañ ko war a màggale su ko defee loolu ñuy wax gàmma moom àdduna bi ci wàllu jullit ñi ci boroom xam-xam yi ñu ci baree bari dañ cee am ak wuute ndax am na ñoo xam ne ñoom dañ ne moom gàmma moom bidaa la wëree su ko def waaye itam am na ñoo xam ne dañ ne donte bidaale itam lu baax la lu màgg lu rëy la loo xam ne bi dañ ko war di def su ko defee ñu jégg lu baax ñun taxawaay biñ ci war a am rek mooy jéem yàlla danoo boole xaadimu rasul te mu nekk suñu royukaay boo xam ne bi ci moom rek la ñuy roy lépp loo xam ne lii danoo gis ne saxal na ko doon ko def te di ko digle ñun ca loola rek lañu fas yéene nekk amatuñu maanaam leneen lañ cay xool ci ak wuute gu ci am wala leneen su ko defee bu dee ci wàllu gàmmala moom lim ci wax rek mooy da ko daan def te di ca bëgg lool di ko digle itam ñu di ko def kon ñun itam ca loolu rek la ñuy fas yéene wuy saa bu ñu ko fekkee di ñaan yàlla fekke koy ati ati yu koy suñ njortu di ko màggal comme di ca jéem a góorgóorlu comme noonu mu ko daan defee doonte mënuñu ko kon ab taxawaayam wala lenn loo xam ne li wax nañu ko ci taxawaay bi ñu war a taxaw ci gàmm mooy dafay wax ne mawliduhu muazzamu mubaarakun muxtaramu taazimuhu yanxatimu ala zawi taqaddumi ne ne gane gi nga xam ne gii sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gane na ko adun de ne ne muazzamun la maanaam lu màggal lu ñu màggal la muazzam lu ñu màggal la kon jëm gane àdduna gi lu ñu màggal la kon kon kon gàmmoo gàngoo kon màgg maanaam gàmmoo nañ ko ba pare mu baarakun ne ne loo xam ne ni lu ñu barkeel la muxtaramu waaye itam loo xam ne ni lu ñu war a ormal la kon ne ne taazimuhu kon màggal ko yan xatim day nekk loo xam ne ni lu waru la lu war la ala zawi taqaddum yi ci ñi nga xam ne ñi ñoo fi jiitu woon gis nga dañu ne ñu bari dañ ne gàmmu bidaa la waaye booy xool taazimu xoo yan xati mujj yi nga xam ne màggal gi ñu ko war a màggal te mooy dañoo war a def gàmmoo dafay war ci ñi nga xam ne ñi dañ fi jiitoon sax donte ñoom ñoo ñu ci bari dañ ne ay bidaa la daa di ne taazimu xoo bis sunnati yaquduna lil jannati bi hisdiyaadul minnati li muxlisin mu azimi gis nga sëriñ yi mi ngi wax ne taawimuhu bis sunnati yaxuduna lil jannati bi hisdiyaadul minnati li muxlisin mu azimi ma ne taawimuhu màggal guddi googu muy gàmmo bis sunnati teg màggal googu nga koy màggal nga teg ko ci sunna mooy jàng alxuraan julli ci yonente bi zikrullahi istixfaar salaatu ala nabi yi muy lépp loo xam ne lay xeetu jaamu yàlla rek soo ko mën a def maanaam nga màggale ko guddi googu de yaqudu naa dinañu omat moom gàmma googu màggal gi lil jannati jëme nu ci àjjana bi hisdiyaadul minnati tey ne ne màggal googu ñu koy màggal muy gàmmu de am na barke bu toll ni ki lépp loo xam ne li amal nañ ko ci ay xewal rek sunu màggalee guddi googu xéwal yooyee day yokk waaye nag li muxlisin mu azimi ne nag yokkute xéwal yi day ñeel ki nga xam ne kii da ko sellal te màggal ko maanaam màggal ko ci màggal wax na bii gu mu sellal lay doon mooy muy dellu ci sunna gee rek mooy nam lépp tegu ci sunna daal di wax lenn ci njariñ yi ki nga xam ne kii day gàmmo ci di ko teg ci sunna di ko sellal mu ne faman yu'azzim mawlida képp koo xam ne kii yaa ngay màggal guddik guddik gane àdduna ak yonente bi baabil huda moom mi nga xam ne mooy buntam lépp loo xam ne ni ak jiw la ne ku koy defee falaa yu xaasa boo xada ne ne su ëllëgee ca bés penc ba maanaam duñu réglé ay jëfam maanaam dañu ko naan rek demal nga daal di wéy ca kër ak teraanga ga muy àjjana faxtari man ne ne kon nanga ko ormaal waa zimi te di ko màggal te di nga te ngay gàmmoo dane fa man yu'azzim mawlida képp koo xam ne ki ma ngay màggal gane ak àdduna ak xayril baraya ngën yi mbindeef ya ahmada te tudd ahmad fa ka shahidin ñu ngi mel ni koo xam ne ki seere na shahida goog ku seere la ku fekke la badaran xare badara ba bi xayri waxami ci lu dut yenni lënt lënt gis nga badar muy xare boobu nga xam ne ni mën nañu mooy xare bi gën a metti ci lislaam te mu am solo lool ci jullit ñi ko fekke woon ci daraja yoo xam ne yàlla defal na nañu ko ñoom saxaaba yooyu deman badar ndax bokk na ci seeni daraja ne nañu puurit ma nga xam ne nii moo doon génn ci fas ya ñu waral ñoom jullit ñi ñoom saxaaba ya doon xare badar fas ya ñu waral puurit ma nga xam ne moo doon génn ci seen fas ya nee na daraja daraja ya puurit moomee am moo gën a kowe darajay wàlli woo xam ne wii ku àgg ci yàlla la seen puurit ma rek la wax nag kon waxul fas ya waxul ñaq wa waaye waxul jëmm yi ci seen bopp sax maanaam la nga xam ne bii moom lañ ko moom lañ ci amee ci ay daraja te sëriñ bi ne ne képp koo xam ne kii gàmmo ñëw na nga màggal guddi googu teg ko ci sunna sellal ko def ci ak jaamu yàlla rek te yàlla tax ne yaa ngi mel ni ña nga xam ne ñoo neen ca badar bokk ca xare boobee xaadimu rasul nee na fa kullu man képp koo xam ne kii an faxa def na alalam an faxa dépensé na fii mawlidihi al musharraf ci gën a adduna bi yonante bu sell boobu bu tedd boobu maalan alal joo xam ne ji bi xayri sarafi ci alal la joo xam ne ji ju baax la joo xam ne ji amee ko ci yàq walaw bi xadara dirhamin donte lu toll ak benn dërëm la ne képp koo xam ne ki def nga ko ci gàmm googu fa innahu ne na waajooju kaman xadar mokka teewan ñoo yem yow ma xoneyni ci bisub xoneyni xoneyni ci xare yonente bi la wa sabar te muñan wa yow ma badrin dina mel itam ku teewan badar te muñ wa nasara tey dina mel ni koo xam ne ki dimbali woon na dimbaleen na xayral waral mu faham yi ka nga xam ne ki mooy ngën ji mbindeef yépp ku ñu déggal ka ku ñu xamal ka muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama fa man yu'azzim mawlida képp koo xam ne ki màggal na gën ak àdduna ak nabiyina sunu yonente bi baabil huda ki nga xam ne ki mooy buntab lépp lu dig njub ne ne falaa yu xaasabu xadaa su ëllëgee duñu régler ay jëfam indal xisaabil mufhimi fa réglé jëf nga nga xam ne bii ku ñu réglé say jëf rek maanaam nga we dem maanaam di nga jaaxle di nga am ak tiit di nga am jàqare ne ne kuy gàmmoo guddi yonent bi di ko màggal ne ne bu boobaa sa jëf yi nga doon jëf yi deesatu ko seet di ko réglé dañu lay fay lañ lay fay rek defal la ko ci ay xewal wa kullu man képp koo xam ne kii xad xadara teewe na mawlida afdalil wara fa ñuy gàmmoo moo aziman di gàmmoo mu bashiran di bégal ñay gàmmo di sukkaran ci lu saf suukar aw laxamin wala loo xam ne lii ak ndawal la aw yàpp nga di ko jox ñay gàmmo fa innahu nee na waajooju wala kooku xat zafira tuufu na am na bi ma yu diinu ci loo xam ne li dana saxal al bushara ay ndëkkeem àdduna ak alaxira wala yu laaxi te du dajeeteeg darara benn loraange yoma timaal umami buñ xeet yëpp demee ba daje muy bis penc ba lene du fa dajeeg benn loraange loolu nga mën koo amee ci gàmmo fa man képp koo xam ne kii hëyya defar na taaman aw ñam li man xat xara a lahu ñeel ña nekk ca gàmmo nga du jàng nga def aw ñam dem jox leen ko mu bajjilan nene ngay màggal guddi googu fa xabaa ne ne dajale na xayraati ahlil himam bi yiw ñëpp ñi nga xam ne ñi boroom yi himma lañu sëriñ bi ne ne waman ala cheyin xara mawlida sayidil wara tabarrukan fa sayara numuwahu bil fadqani ne ne waman xara képp koo koo xam ne jàng na ala cheyin maanaam tiim dara di jàng mawlida sayidil wara gàmmo xam ne yow bi ngay gàmmo am na loo tiim bëgg yàlla defal la ca bari nga tiim loolee di ko di jàng ca la ngay jàng ca gàmmo nga tabarrukan ngir di barkeelu bëgg loolu am barke ne ne fasa yaraat xel set naa gis nu mu woo ak yokkuteem bil fa daxam ne ci yaatu ne ne ne boo dee gàmm nga am loo xam ne danga bëgg yàlla barkeelal ko ci loo yor loo am maanaam nga tiim loolee di jàng la ngay jàng ca gàmm ga ne ne bu jàllee rek di nga gis loola ak yokkute bu bare gu yaatu yaatu dal di ci am wa in ala ma in xuri mawlidu xayril bashari fa shurbu bil mutahhari yakufu kaydal murxami wa in xuri bees jàngee ala ma in tiimale ci am ndox mawlidu xayril bashari gàmm maanaam ngay gàmm la ngay jàng maanaam nga tàngam ndox tiim ko di jàng fa shurbu ne ne naan bil mutahhari ca ndox mu laab moo bee yakuf dana fekk kay dal murxami pexeyam seytaane ne ne yow mi gàmm di jàng alxuraan wala ngay xasida wala ngay zikkar wala ngay salaatu ala nabi nga tanga ndox taaj ko tiim ko di jàng loola ngay jàng leneen ndox moomee ku ca naan dina la musal ci seytaane maanaam dina tax pexeyam seytaane nga mucc ca yu nawwirul xalba sharab min dalikal ma bil mujab wal xalba yoxi duuna ab wa an shaqa in yaxtami ne ne naan ci ndox moomu ka nga xam ne kii dacaa naan ne ne naan googu muy naan ndox ma day leeral ab xolam te it ne ne ki naan ci ndox moomu xolam boobu day gën di dund rek te lépp loo xam ne ni ay ayib dacaa nekkan day daal di génn wayax tamit te it dana aaru an shaqaayin ci texeet yi kon daal sëriñ bi ne na ihyaa mawlidil bashir yaxmil iyaala wa duyur fii shifaa'un li sudur li kulli haadin yantami kon daal mbokk yi gàmmam mi ngi noonu njariñu neen ñeel képp ko xam ne kii def nga gàmma gi nii ko sëñ bi diglee te mooy nga teg ko ci sunna te ne ne fii ihyaa mawlidil bashir dundal guddi gàmma googi muy ku ñu bégloo ga aji bégle ji ne ne gàmma googu ñu koy gàmmo yaxmil yàlla day aar ak njaboot wa duyur day aar kër ya fii shifaa'un li suru tey ne ne gàmm googu ñu koy gàmmoo am na saafaraas yépp xol yoo xam ne yii ak lëndëm da ca nekk di kulli haadin yan tamit ñeel képp koo xam ne kii yaa ngi askanoo ci ak jub maanaam yaa ngi bëgg a jub kon salla ala xayril bashar baaxin yu diimu lil bushar bil ali wa sahbi durar ma salaamin yaa tamit kon mbokk yi gàmm mi ngi noonu gàmmo daal ku ko ku koy sabenta wala nga naa ay biddaal ak waree su ko defee yooyu yow bu fekkee nit jullit nga bu de fekkee ni ab taalube nga jooju wax moom jërte di lu na nga góorgóorlu ba su guddi ga ñëwee loo ci mën a taxaw ci jaamu yàlla nga def ko ci guddi ga wu tudde ko ak gàmmo te it téere bii ñu wax jazbul xulub ku ca dem di nga xam ne sëriñ bi moom maanaam gàmmo moom yemalew ko ak dara yemalew ko ak lenn te it ne nañu moom dafa fonkoon gàmm ba weer wi ci boppam saa bu terwaa képp koo xam ne kii maanaam yaa ko ko jëkk a wax dalay jox ab neexal bu rëy rëy rëy boo xam ne bii yow mu na ko jox sax da ngay kontaan da ngay tiit ndax bégte boo xam ne gi da koy bég ci loolu nga ko wax ne ko weeru gàmmo bi feeñ na loola taxam dañ daan jëkkante ngir di ko wax teru teeg weer wi kon jëm mooy suñu royukaay daal te noonu la jàppe gàmmo kon nanu góorgóorlu ñaan yàlla may ñu fekke ak tal bañ mën ko màggal bu baax a baax di jay seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi jégalu bu baax a baax